soxna si mi ngi tudd Fatima Diop mu ngi jóge ba réew bu Argentine ñëw fii Sénégal ñëw ci dëkk bu sell bi di tuuba amal nag jaaram ci jumaay ku tedd ki Cheikhul ginnaaw bi yëkkati na ay kàddu yu daw yaram lool histoire bu daw yaram nettali li mu nekkoon bu njëkk naka la def ba dugg ci diine lislaam lan moo ko marqué ci cheikhul xadim ak gëstu yi nga xam ni def na ko ci Serigne Touba mi ngi ànd ak nag ñaari doomam yu jóge ba Argentine kàddam yooyu mi ngi ko wax ci langue espagnol ci langue wolof Moustapha Sène moo ñu defal tradition bi ba ñu mën ko dégg ci wolof. alhamdulilah voy a contarles un poco mi historia. asalaamaaleykum wa waaw ku jigéen ki nag ndeysaan jigéen bu am la nee na turam mu ngi nekkoon Emma Mariana mu nekkoon ci religion chrétienne muy sant yàlla bu baax mm, aussi di nettali tuuti ci li nga xamante ne moo jëm ci naka la dugge ci religion islamique muy lu am solo ndax moom dafa jóge ci histoire boo xamante ne moo daloon pappam muy pàppam bu mu fàttoo mu daldi mere yàlla bu baax a baax ndax gis ne lan moo tax yàlla jël bakkanu pàppam donc mu commencé am ay doute mais nag mu daldi teg lépp ci loxo yàlla tamit ba léegi ndax nee ne yëgoon na ne amoon na benn yàlla bu am mais ci benn moment aussi ab jërbaatam juddu mu waroon a doon deyaleem te ci seeni religion famille am il fallait que mu def ay tuuti ay jàng gestu dem ci église e ci biir gestu yooyu nag aussi moom mu dem sax faral sax di jàng ngir maanaam doon ab jànglekat ci li nga xamante ne mooy église yi def benn formation ci biir formation boobu moom aussi ci benn bés ab professeur am di wax ci wàllub dee ci la ne lan moo tax yàlla du jël samay mbokk samay parent sama yaay sama pap muy déglu bu baax ba mu yàgg mu commencé affaire bi yëkkatiwaat xelam mu daal di commencé waat continué waat di gëstu continué ab jàngam ba benn yoon loolu mu ngi woon ci 2007 mu daal di dégg gis benn journal boo xam ne da doon wax ci conflit bu amoon diggante Iran ak Irak mu daal ne. mais lan moo tax ay dëkk yu mel ni Iran ak Irak ay dëkk jullit am problème yu bëri mu continuer di gëstu ba gis journal boobu nga xamante ne da koo liir bu mu koy liir journal bi di expliquer lan moo waral conflit boobu mais aussi ci biir mu expliquer ni lan mooy islaam wax lu bëri ci islam moom bu mu liiree loolu nag ci la bëtam ubbeeku mu ne ah dafa mel ni lii mooy sama religion dafa mel ni la ma doon jàng sax dama cee juum ci la continuer nag di gëstu ba far benn yoon aussi mu daal di xamanteek benn sénégalais bu tudd Bamba mu gis ne sénégalais boobu mu ngi doon déglu ay xasaayit mu gis image yu Serigne Touba ci li nga xamante ne mooy téléphone portable mu daal di ne kii may gis de image bi ak lii may sentir nii ci sama xol dafa mel ni kii ku am solo la ku am maanaa la ci li nga xamante ne mooy diine islam ci la daal di déglu Bamba mu expliquer ko tuuti ci li nga xamante ne mooy religion islamique mais aussi. yàggul dara mu xamante jëkkëram bi nga xamante ne mooy Assane jóob dem ba am ak moom sax njaboot léegi nag moom nag far sax daal di jël décision nag ngir dugg ci li nga xamante ne mooy diine bu islaam dugub diine bu islaam boobu mu ngi ko def ci novembre bu 2008 commencé jàng commencé déglu commencé aussi am ay jafe-jafe ndax ay njabootam commencé koo bàyyi ndax mënuñu woon a comprendre moom appui mu def ci li nga xamante ne mooy religion chrétienne mu jékki-jékki rek ne moom musulman la commencé ay muuru commencé ko bàyyi ñoom ba njabootam waaye mu muñ ko lépp mu teg ko ci yàlla continuer li nga xamante moo nekkoon aspiration te continue nekk aspiration ba léegi muy topp diine islam topp ki nga xamante ne mooy Serigne Touba ci la demaat aussi ba xamante ki nga xamante mooy euh, Mariama Ñaan ba mu xamanteek moom commencé jàng ak ñoom commencé aussi di dajale ndax ñoom ak ñi nga xamante mooy jëbëru sénégalais yi nekk fii ci Argentine bu créer li nga xamante ne mooy daare bu ñu tuddee soxna maam jaare Bousso continuer aussi di jàng ak seen professeur boo xamante ne wala seen imam bu tudd Muntaka di jàng islam di jàng culture sénégalaise di jàng lépp di gëstu ba benn bés aussi ñu daal di ko invité ci benn plateforme en live pour ñuy waxtaan ci li nga xamante ne mooy naka la ñu dundee duggee ñoom ci religion islamique loolu nag ñi leen invité woon ñu ngi nekkoon benni daare boo xam ne mu ngi nekk Italie Ansar léegi nag daara boobu bi mu leen invité ñu nekk ci live bi ba benn moment rek Serigne Mountakha daal di dugg ci li nga xamante ne e, mooy e, live bi bu mu daal duggee nag daal leen wax ne. seen organisation mu ngi leen di may ñoom waa daara ji mu ngi leen di may li nga xamante ne mooy euh, billet pour ñu mu am benn représentante boo xam ne dina dem ca magal ba ci ndaje boobu aussi maanaam amoon nañ benn traducteur bu tudd Moussa John moo nekkoon euh, seen wet di leen traduiral ki nga xamante ne mooy duggoon aussi moo tudd Serigne na Mbacké moo duggoon maanaam di wax wàllu intention bi nga xamante ne eh, euh, sëñ bi amoon na ko pour maanaam daal di leen may benn bi pour ñu dem Sénégal léegi nag mu sant yàlla bu baax ndax nee na jëwriñ Bamba daal di jël décision ne yow la ñuy tànn ngir nga daal di dem Sénégal mu kontaan ci lool te sant ci yàlla sant sénégalais ak communauté sénégalaise ak Sénégal ngir teraangaam sant bu baax li nga xamante ne mu ngi koy dund Sénégal dëpp bu ñëwee Sénégal ba léegi. sant bu baax li nga xamante ni mu ngi koy yëgg ci lislaam ak lu mu ciy géestu sant bu baax ndax njabootam ñu ngi foofu di jàng franco arabe di jàng diine ak culture Sénégal sant bu baax ndax à chaque fois ñi nga xamante ne mu ngi dal seen kër ñu ngi koy géestu di ko yor yor ko maanaam di ko euh, muy dund ak ñoom jam ak xéwal di dund li nga xamante mooy culture Sénégal mais di dund teraanga Sénégal donc nee na amut fa santam mën a yem te sëñ Touba aussi mën na wax ci moom lu bëri te loolu aussi eh, pour niñ ko mën a résumer rek mooy ne moom gestu na lu bëri ci sëñ Touba wax na ci fan la juddoo fu mu jànge ñan ñooy ay pàppam lan mooy Euh, liggéeyu sëñ Tuuba naka la doon toppee yonante Muhammad sallallahu alayhi wa wax ci li nga xamante ne mooy ay bindam ay livre am wax ci ay jàngale yu am solo ay xadisu yonante Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leeral ne moom dafa amoon sax jafe-jafe ngir ak euh, jaaxle aussi ngir naka lay def pour makkal li nga xamante ne mooy suraatu islaam yi maanaam euh, yu suraat yi nga xamante ne moom la war a utiliser pour julli waaye nee na tey jii muy wax ak yéen na fukki suuraat te continue day continuer di jàng ndax moom li nga xamante mooy objectif mooy jàngal jàng ba makkal Coran bi yëpp alxuraan bi yëpp téere alxuraan muy lu am solo donc moom mu ngi gëstu bu baax ak ñu mu àndal yépp ñu ngi gëstu ci da ci religion islamique ñu ngi jàng arab ñu ngi jàngal seeni doom ñu ngi topp li nga xamante ne mooy exemple soxna maam jaara Bousso mi nga xamante moom la ñu tudd seen daara ndax loolu aussi ñoom gis nañ ni ñoom ñoo war a doon ab exemple pour ay doomam comme ni ko soxna maam jaara Bousso nekkee exemple ngir bépp jigéen boo xamante yaa ngi ci religion islamique donc moom aussi wax na ci histoire bi nga xamante ne colonisateurs yi maanaam colon français yi dekkoon nañ ko di ko dund ak sëñ Touba Mbacke di ko bunduxatal ndax comprendre ñu woon lan moo nekkoon objectif am lan moo nekkoon liggéeyam xamuñ woon ne kiikat ab jàmmu yàlla jàmmukatu yàlla bu mag la koo xamante ne diffusion bu culture la bo la doon def ndax ñoom aussi bëgguñ woon islam jëm kanam bëggut woon mouridisme jëm kanam moo taxoon ñu ko doon jéem a faagaagal ba benn jour sax ñu dugal ko ci benn néeg boo xam ne daa amoon ay gaynde waaye nag far nag bi ñu ñëwaatee gis ne gaynde yooyu defuñ ko dara mu daal di sant yàlla nag daal di tëj foofu te jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ñoo jàpp ci entretien bi mu mel ni góor ñoom góor a euh, sekk ci entretien bi nga xamante ne mu ngi ko doon def ndax day tax kat Sénégal ak àdduna bi yëpp xam ne moom nu mu def ba dugg ci islam du woon lu yomb ndax dara yombut te yàlla aussi du def dara boo xamante ne amul njëriñ yàlla lu mu def rekk dara tax te lu am njëriñ la loo am sens la te ñoom lu leen war mooy topp yàlla topp ndigalu yàlla déglu yàlla pratiquer li nga xamante ne mooy islam du laa de théorie comme ni nga xamante ne Sëriñ Tuubaa noonu la ko bëggee woon am théorie mais aussi am pratique loolu mooy lu am solo muy jaajëfal ñëpp lu am solo la te ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla gën di jàppale ci li nga xamante ne moom ay jàngam ak ay gëstoom ak comportement ak lii nga xamante ne mu ngi koy topp islam te Eh, di ko pratiquer ngir maanaam eh, léppam ci àdduna eh, mën a gën a jëm kanam yàlla na ko yàlla jàppale yàlla na ko sëriñ Tuubaa jàppale yàlla na ko soxna maam Jaara Buso jàppale Entonces, gracias a Dios. Gracias a Dios. Muy bien. Gracias. ¿Tu última palabra? Mi gracias, gracias, Senegal, gracias a todo Senegal. Y estoy muy, muy, muy, feliz de estar acá y enriquecerme en el Islam y vamos a seguir. Y para poder enseñar también el día de mañana, porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe. <laughs> wolof sabel nga de wolof ay tuuti tuuti wolof waaw tuuti maa ngi fi <laughs> maa ngi <laughs> sant wax loo mën a wax ci Serigne Touba ci wolof ay Serigne Touba mais peut être algo Serigne Touba de wolof Ay, no. <laughs> Dale. No, en, Wolof. en Wolof. Wolof, sí. Ay, no sé qué decirte en Wolof de ser eh, No sé, siempre uno dice, Jerejef Serintua. Muy bien. Serintua, Jerejef Serintua. Listo. Listo. Listo. Listo. jërëjëf sognamam Yarabuso. Que a Serigne que Alá le dé larga vida, larga vida y fuerza para seguir guiándonos en este camino que es el Islam, que a veces se torna ah, difícil, pero Allah, Allah le va a dar la fuerza que él necesita. Sí, sí. Wow, jërëjëf Serigne Muntaha. yes. Serigne Mountakha Mbacké mhm. jërëjëf Serigne Mountakha Mbacké jërëjëf Serigne Mountakha Mbacké mhm. waaw waaw <laughs>